naafila 23 guddik ñaar fukkeel gi ak ñett ci weeru koor sopp nañ ku ci julli ñeenti rakaan aka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng izaa jaa juróomi yoon jàng xul huwallaahu ahad juróomi yoon des na ko ca jéggal bakkaaram yépp te des na digal ñaari malaayika ñuy far ay ñaawteefam di ko bindal ay yiw ba bis ba di dellu ci déwén te bu faatoo ci diggante bi des na ko bindal tuyaabay ku ci jihaad te dana dekkiwaale ak leer te buy jéggi siraat day mel ak melax xarit yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke page 149